ki femme bi saa bu may waxtaan ni dama koy gis day muuru ba rafet ñëw topp niroowu la kenn foofu nag parce que jigéen la daal day toog mais intéressé wu ci daara ji lool ba benn jour nag su ma benn mag ma nekkaloon mu ni ma soxna si day bëgg na daara ji trop ma ne ko fu mu dëkk mun ma ci beneen dëkk la dëkk fii ci gannaaw deux jours lañ ci teg soxna si ñëw seet si ma parce que nee na yaayam dafa feebar ma ànd ak moom ñu dem seeti yaayam ak mag moomu defal ko fatwa bi yàlla dimbaliñ ci moom ci ëllëg sa borom dëkk bi invité ma ma ñëw toog ci dëkk bi rek ma seen yaayam di traversé mu ma sa soxna si de jóg na ma nga nële mané ko buñ paré ñu jaar fa bañ fa jaaré nak fekk fa xalé lu jigen li jank bu mag la euh, jeeg mu ndaw la sax parce fekk na ko am dom euh mom nak mu sawar lol ci daara ji ba yëkëti fa 300 di mako jox addiye mané ko soxna si li nag mu ma dama ko barkeeloo ci daara ji fofu rek mak ma àndal ne ma ne ko soxna si do ñëw ñu may la sëriñ mu man kay sëriñ bi rek la bëgg mané ko yow borom kër ma fa joggé nak yalla dogal ma dem di waxtaan ak yaayam yaayam mu day ya-, papa man ko doon ñaanal jëkëru sëriñ ba ma delloo ci dëkk bi ma nekk ma wax ko sama njaatige mu ne ma ah kilifa la kooku moom ma njëkk a wax kilifa la ma gisaat suma njaatige bi ma indi ci dëkk bi mu ne ma soxna soosu kilifa la bi ma naan kilifa la nag xaw ma kilifa lu ñu ma wax ci moom waaye terewul rek ma ma ne ko daal man vraiment soxna si moom yitteewoo naa ko trop te comme yebu na ci daara ji man soxla naa ko ginnaaw gi ci laa soog a dem euh, ànd ak waa ji ñu delluwaat ci kër ga soxna si nag ma waxtaan ak moom mu ne ma dañuy seeti papaam ci benn dëkk ba ñu eggee ci papaam daal papaam mu ni ma daal sa jëmm rek maye na soxna ci kàttanu yàlla ñu ak euh, histoire bu gudd ba ma jot ci soxna si soxna soosu nag bi ma jotee ci moom yàlla dogal na ak ak dox yi ma dox ak moom lu bëri lu ma xam ci wàllu pratique ci wàllu seytaane façon yooyu moom moo ma ci def ay leeral bokk na ci benn jour maak moom dem nañ benn dëkk bu ñoo ciisee ci ginnaaw pas yi mu dégg benn saret buy woote pour jaayi pataas mu dem ne ma jox ma xaalis ma jox xaalis mu dem jënd ay pataas yu mag keroog bi mu ñëwee ma toog mu toog ni sam wet nee na ma euh, xaaral ma woon la dëmm nu muy lekk nit ma ne ko nan lay lekk nit mu gestu daal di xool pataas bi ma yor man mu ni ma xar ko ma xar pataas bi fekk ci biir wow koŋ amul ñam nekk ay nii dabay dafa dafa mel ni xott dafa comme comme wànq wànq ni muy def gerte maanaam euh, pataas boobu keroog noonu la mel ma ne ko lii nag mu ni ma dëmm nii lay lekk nit dañ lay téye nga feebar tëdd sa kaw lal sa yaram di tàng ñuy naan sa deret kooku benn ci façon la moom wax na ma loolu keroog waaw nee na ma dinañ jëlee ci yow ay six ay sept ba nga weex tal boo demee hôpital du ñu gis ci yow benn feebar mais sa yaram day tàng rek ngay jeex rek ngay jeex rek ngay jeex rek mu ni ma kooku benn façon la ci lekk nit. li ma wan ni moom dëmm la nag euh, bëri na ci ay mandarga yu bëri ginnaaw parce que comme dama ànd ak moom euh, mu di ma defal ay tentation bokk na ci. Euh, bi ma njëkk a defal benn guddi dañu tëdd guddi nii léegi euh, yàlla dogal moom dafa nekkoon jigéen boo xam ni li ëpp góor koy uti mais jour boobu nag dafa jékki-jékki rek daal di wàcc lal bi il faisait ay deux heures du matin ma di ko xool mu génn néeg taxaw ci digg kër gi ma di ko xool mu sumee ko ba di ko ndeyam juree comme ne affaire bi néegu ñax la te dañ ko puus nii ma di ko gis ci biti ci leeral maa ngi ci biir néeg bi tëdd jàkkaarlook moom mu daal di sangoo ndox mais ndox moom bi mu koy sangoo maa ngi gis ni muy melaxe moom maanaam yaram wi daal di def ay melaxit daal ci façon daal mu jékki-jékki rek woo ma nag mu mut lamin ma uyu ko mu ne ma kaay xool li ci taatu guy gi bi ma génnee ma nit ma romb ko jubal ci taatu guy gi taxaw xool-xool mu daal di reekoor ma ne ko lan la mun ma foofu la nekkoon ma ne sama xel peut-être film bay soo commencé ma daal di ñëwaat dugg ci néeg bi moom mu daal di may jaare fale mais bi may jub dama yëg benn affaire bu deñ fii ci man affaire boobu ma yëgee mu deñ rek maa ngi yëg sama ngóora ni muy wàcce wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba toll nii léegi moom bi mu ñëwee ci sama braquette la jubal mais bi mu téyee suma ngóora bi dafa def ni kon dafa am lu mu fa waroon a jël mais nag yàlla moo ko jiitu ci man coupé circuit bi bien avant moom muy ñëw parce que xam naa li denc ci man moom dindiwu ko parce que avant muy avant muy ñëw affaire bi dañ na yaa ngi dégg waaye moom nag bi mu téyee suma kanam yaa ngi dégg daf ni nii xoolal daf ni <gasps> daf ni dafa mel ni ku aspiré yaa ngi dégg ma ne ko yow ma ne ko li ngay seet li ngay seet dem na Kaffrine noonu laa ko tooñee keroog foofu nag erreur bi ma def mooy mu tëdd ma làmb suma kanam mu mel ni mu musul mel foofu nag erreur bi ma def mooy ma jóg pour di ko jéem a sàkku mën a lu ma ko dara mu daal di jóg toog ree ko ne ma yow doo sama jëkkër ma ne ko ma bi ma naan doo sama jëkkër dafa muuroo benn sër mais ñaari bët yi nii bu ci def mi ngi def ay bandes yu rouge maanaam fii mu ngi def ay tras fii def ay tras mu mel comme façon boobu moo doon wane gars yi jour boobu moom noonu la mel. nanguwuma xool bu baax sax foofu nag la ma wax ne ma soo demee nga utal ma valise comme ça boo ñëwee ma mën di ànd ak yow di dox. boobu temps commencé gul ànd ak man di génn parce que takk naa ko deux mois mënu ma ko génne seen kër yàlla dogal affaire boobu ma dal noonu bi fajar laa jëg ko. dem beneen dëkk ci biir Saloum c'était pour ma sori ko pour mën a xool sama bopp dëkk boobu bi ma ci eggee li ma njëkk a def mooy dama julli ñaar rakka ma dugal fàttu ñaan yàlla buur bi taaraka wa taala lii nekk ci man bu fekkee ni yàlla moo ko dindi maanaam mu delloosil ma ko waaye bu fekkee ne ci ndaw si la jaare ca gëm naa ni man seytaane mënumaa jàpp ndax yàlla moo wax ni képp ku gëm yàlla sukkandiku ci yàlla seytaane amul ci yow bunt ca man dama gëm yàlla sukkandiku ci yàlla xam it nan laay sukkandikoo ci yàlla innahu laysa lahu sultaanu ala lazina amanu wala rabbihim yatawakkaluun bi ma dugalee fatwa ba ñëw tëddaat ci lal bi ci la ma yàlla delloo sil sama kattan man ma yëg sama ngóor ni muy génnewaat ba tolluwaat ni mu tolloon melaat ni mu meloon ma xam ne kon moom loola la ma bëggoon a def mais yàlla moo ko jiitu ci man kooku na ci mandarga yi ma njëkk xam ci ne kon moom mi am na pouvoir ba ma ñibbee fekk ko fa ma ñëw gis kër gi ni mu demee ma xam ne kon ñoom am nañ benn ñaal bu ñu fiiroon benn fiir bu ñu tegoon waaye nag yàlla dogal ma ñëwee comme maa ngi ak sama bopp léegi ma ñëw ak sumay sërëcaag yooyu mu ni ma nag diw def na ci yow cinquante mille ma ne ko pour lan mu ni pour nga bañ a nekk góor ma ne ko garaawul soon naa ko doon te yow xamoon nga ko léegi su ma luppee après nga dem wax ko waa teen ba rek kooku amul benn problème guddi googu nag bi ñu jaxasoo man ak moom mu xam ne kii li nekkoon ci moom dellu si na ci lay soog xam ne man am naa capacité yor ko te ëllëg sa ci lay soog a d'accord ànd ak man ci mission bi dinaa mission bi nag bi ñu génnee nag la may wax boppam mu ni ma nag dëmm yu nekk ci tund bi yëpp maay seen bàjjen léegi dinaa la woon ki nga xam ne moom laa remplacé ci la ma soog a jël dem yóbbu ci benn maire bu màgget bu gumba ñoo ngi fekk ben tank bi sa dafa damm ya nga deg bi ma egsee mu ni ma kii suñu badjan kérok lama soxna ci wax ne ma ah jobu juba mané ka munima waron nga fekk sama bët yi di xol ya nga deg mu daal may tek loxo ni daal di may ray nonu ya nga deg daal ni ma nak ma nga lay sante bu baax waye nak suma don doon góor de du ma ki nga andal kérok mère bi wax na ma lolu mais biñu génnee ndaw ci da ko saga sax ki nga xamni ñom ñu ñak teggin lañu ñom ñu ñak kersa lañu parce que gis nga ndaw soosu ni ñu ko garé ki nga xamni mo remplacer won soxna si kon bokk na ci mandarga yooyu ndaw soosu xamal na ma lu bëri parce que dëmm parce que dëmm yi bu ñu bëggee xam ndax xam nga ci ñoom dara dañu lay léebal léebu dëmm nii rek lay demee. dafa am benn jour man nag moom ñu toog ba mu yàgg mu jékki-jékki ne ma armeel yi ma ne ko waaw mu ni ma benn borom xam-xam jaaroon na fi nee na la fa nekk ci ay cina ki bool ak i jaase ki semañ ma ne ko loolu pour lan la mu ne parce que dëmm yi bu ñu rey nit ba dem foofu day fa lañ koy daggatee di ko séddoo di ko lekk ma ne kooku xamul dara. kooku mu ne maa ma ne ko loolu noonu léebu dëmm la ma ne ko dëmm yi duñu lekk nit noonu mu daal di ree daal di tëj bunt boobu parce que dëmm boo nekkee ak moom bu bëggee xam ndax xam nga ci moom dara daf lay léebal léebu dëmm waaw daf lay dox affaire bu impossible léegi nag soo ko fekk see ci loolu mu xam ne yow xamoo dara ah, soxna si yor naa ko presque deux ans et demi mais ci durée li ma ko yor yëpp bokk na ci buñ demee ci dëkk comme man maa ngi doon woote ci kennal gi bu ko fàtte di dox ci dëkk yi dama doon and ak mom aussi mais des fois dañuy dugg ci dëkk munu ma dëkk bi nag ma ne ko ah, munu ma dëkk bu dëmm la léegi dëmm yi ma ne ko ah, munu ma dinaa la jox seen euh, seen seen axwaal seen seen nu ñuy mel waaw bu ñu tolloo ci seen seen àll nan la ñuy mel munu ma maa ngi ci biti ku dugg suma la wooyee rek na nga ko bàyyi xel léegi moom ci biti lay toog man ma toog ci biir néeg bi di recevoir gan yi mais su ma nee Mamadou Lamine léegi kooku bu ñëwee ba toog su ma ko xoolee bu dee la da gis bëti day xonq kanam gi diis mu mel ni ku ku mu mel ni ku feebar wala ku màndi wala ku gëmëntu yaa ngi dégg marque boobu la ma doon jox ci nit ñi nga xam ni ay dëmm lañu nga xam ne bu ñu nekkee ci seen àll pour war a gaañ nit maanaam nga gis gémmiñ gi ni muy loxe nga gis kanam gi ni muy diisee boo ko xoolee day mel ni ku feebar wala ku siburu wala ku gëmëntu munu ma ñoom bu ñu tollee seen situation dëgg maanaam àll boobu la ñuy yor. lépp loo xam ne xërëm la ak njëbar ak pexe awliya seytaan yi maanaam daara ji loolu la jógal. loolu moo tax su ma nee awliya seytaane nag lu yàlla santaane la ci alquran allazina amano yuxaatiluuna fi sabilillahi walazina kafaru yuxaatiluuna fi sabili taaut yàlla mu ne fa xaatilu awliya seytaan ina kaydu seytaan kaana daifa yàlla nee na ñu gëm yàlla ci yoonu yàlla la ñuy xeex mais nag ñu weddi yàlla ci yoonu xërëm rek la ñuy xeex yàlla nag mu ne fa xaatilu xeex leen awliya ak seen jëdi ina kaydu nekk na seen i pexe kaana nekk na daifan lu néew doole dégg nga wax ji moo tax lu yàlla santaane la pour ñu jógal ko maanaam mission bi nga gis ni yàlla moo ko santaane ci kennal yàlla motax ñu tudde ko daara kennal yàlla kennal yàlla gogu na sa bo ci taxawee xam nga di nga laal xërëm xam nga di nga laal njibar ci légui ñom am nañu ay pexe ñooñu am nañu ay ay ay ki ay ay pouvoir pouvoir yoyu nak mom moy bok na ci jaan yi ma la bëgg a ndax alquran du changer wa innahu la zikru laka wa li xawmika wa sawfa tusaluna na meloon ci muhammad rek non lañ melat ci mbir mi yàlla neen du changer sunnatullahi fi lazina qalu min qabl wa lan tajida li sunnatullahi tabdila